sëriñ talxatu buso sëriñ talxatu buso mi ngi feeñ jamono ci atum 1915 ci dëkk bu sell bii nag di mbàkke bawal ci dëkk bii nag di mbàkke bawal nag la feeña jamono ci atum 1915 di doomu soxna faatim njaay ak ku ñuy wax sëriñ omar buso sëriñ omar buso mii nag meññi sëriñ talxatu buso doomu sëriñ saa buso la sëriñ saa buso nag doomu sëriñ mouhamadou buso la sëriñ mouhamadou buso mii nag moo meññi soxna jaaratullaahi sëtam bii nag di sëriñ omar buso nag moo meññi nag sëriñ talxatu buso mu feeñ jamono nag ci atum 1915 ci dëkk bi nag di Mbàkke Bawal sëriñ Talxatu Buso nag am na ñu bokkal soxna Faati Njaay ak sëriñ Omar Buso ñu mën cee ràññee sëriñ Buso ibnu soxna Faatim Njaay ibnu sëriñ Omar Buso ak soxna Xari Buso bintu soxna Faatim Njaay bintu sëriñ Omar Buso ak soxna Awa Buso bintu soxna Faatim Njaay bintu sëriñ Omar Buso ak moom sëriñ Talxatu Buso ibnu soxna Faatim Njaay ibnu sëriñ Omar Buso njaboot gi sëriñ Talxatu Buso nag bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ngir xamale leen ak ñoom sëriñ Faati Buso moom moo meññ sëriñ Bàcci Bousso nag moom mooy xalifab sëriñ Omar Faty Niang Bousso ñaareelu doomu soxna Faty Ndiaye bi ak sëriñ Omar Bousso moom mooy soxna Xari Bousso soxna Xari Bousso mi nag moom moo meññ sëriñ Modou Niang jullita sëriñ Modou Niang jullit nag moo meññ sëriñ Abdou Lahad Niang conférencier ñaareelu doomu soxna Xari Bousso mi moom mooy soxna Niang soxna Niang nag moo meññ sëriñ Fàllu Mbàkke Jumaada ñetteelu doomu soxna Faty Ndiaye bi ak sëriñ Omar Bousso mooy soxna Awa Bousso soxna Awa Bousso nag moom meññ sëriñ Omar Fall sëriñ Omar Fall nag moom meññ ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Fall ak ku ñuy wax nag ak maam lamp fal conférencier ñeenteelu doomu soxna faati njaay bi ak sëriñ omar buso moom mooy sëriñ tanxatu buso mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim sëriñ masàmba faañang ci gedde nag lañ ko jébbaloon ngir mu jànge fa nag alxuraanul karim ci loxoy sëriñ masàmba faañang nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim ci loxoy sëriñ masàmba faañang ci dëkk boobu nag di gedde dafa wéy nag des gedde moom sëriñ tanxatu buso fas yéenee jàng nag lii di xam-xam ci loxoy sëriñ masàmba faañang ci la tàmbalee jàng jàng nag lii di xam-xam ginnaaw bi nag lañ ko yóbbu nag jaamal ci sëriñ jaamal ngir mu wéel nag am njàngum xam-xamam ci sëriñ jaamal nag la nekk ba ci atum 1945 bi mu nekkee nag ci loxo loxoy sëriñ jaamal fekkante na fa mbokkam mi nag di sëriñ daam bu busa nag bu mbar mook sëriñ daam bu busa nag bu mbar nag ñoo fa jógeendoo ci dëkk boobu nag di jaamal ñu delsiwaat nag gedee sëriñ mbàkke buso ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke booba itam nag cheikh mamadul faadal mbàkke moo nekk xalifa général des mourides di doog a wuutu nag magam ja cheikh mamadul Moustapha Mbacke ginnaaw ñoom ñaar nag bu ñu waxtaanee ba noppi la ma Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag doon saaku nag ci sëriñ Mbacke Bousso ñu jël nag sëriñ Daam Bousso nag mbar yóbbu ko nag mbar nag ci loxo sëriñ Balla Coro foofu nag sëriñ Talxatu Bousso jébbal ko nag sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ngir nag ñoom ñaar ñu nekk nag ci loxoy ñaari kilifa yooyu di leen jàppale nag ci diine ji moo xam ci jàng ak jàngale ak lépp loo xam ne nii nag sëriñ bi soxla na ko ci wàllu diine ñu taxawu ci nag njabootuk sëriñ Balla Coro ak njabootug nag yoonu sëriñ tubaa xaadim rasuul sëriñ daam buso mbar nag wii nag nekk nag ci loxoy sëriñ balla coro sëriñ bi sëriñ abdu samad mbàkke génne àdduna ci atum 1948 Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag mi nekkoon xalifa général des Mourides bindoon na lettre waa Mbar di leen xamal ne Serigne Talxatu Bousso moomu nag laa bëgg nag mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Mbar yore nag ndonal Serigne Abdou Samad Mbacke soo delloo nag ci lettre bi ma Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon ginnaaw nag bu Serigne Abdou Samad Mbacke génnee àdduna te Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag doon xamal waa Mbar di leen wax ne nag Serigne Talxatu Bousso moomu maa leen digal nag ngeen topp ci ginnaawam ngir nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbacke lii nag la Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag bindoon ci ab lettre jébbal ko waa Mbar nag ñu teewlu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen waa Mbar sëriñ Talxatu Buso maa ko fi yabal lu mu wax maa ko wax lu mu def maa ko def loo ku ma wóolu la wasalaam ginnaaw lettre boobu nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon waa Mbar ngir di leen xamal ne nag sëriñ Talxatu Buso mii nag la bëgg nag mu wéyal nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbacke ba ay fan yu néew itam nag Cheikh Mamadou soloon na aw dàllam ñëw itam nag ci dëkk boobu nag di mbar bu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di mbar toogoon nag waajuru sëriñ Abdou Samad Mbacke di soxna xari Silla mbar ak sëriñ Talxatu Buso ak lenn itam nag ci njaboot gi fi sëriñ Abdou Samad Mbacke bàyyi woon Cheikh Mamadou Fadal nag bisub keroog mi ngi doon xamal nag soxna xari mbar Silla doon ko wax ne sama ndey sëriñ Talxatu Buso mii nag laa bëgg nag mu toog fii dundal nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag doon xamal nag sëriñ Talxatu Buso di ko di soxna xari mbar Silla na mooy sëriñ Abdou saa boo fexee daal ba bëtam xonqul man mi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke danaa fexe ba yow itam sëriñ Talxatu Buso sa bët itam du xonq mukk sëriñ Talxatu Buso nag histoire bi nag daana ko nettali nag lu bare baree baree bari di wax ne keroog bi sëriñ Abdou Samad Mbacke génnee àdduna ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag bindoon lettre bii ñu leen jàngal fan ya ca topp mu dul Fadal Mbacke nag soloon naw dàllam ñëw itam nag ci dëkk boobu nag di mbar ak waajuru sëriñ Abdou Samad di soxna maam xari silla mbar ak lenn itam nag ci woon doon dénk nag sëriñ talxatu busa kàddu yi ñu leen wax sëriñ talxatu busa nag wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di mbar yor nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbacke ba tax na itam nag mbooloo mi yaakaaroon sëriñ Abdou Samad Mbacke ñu ci bare bare bare bare bare bare dañoo wéy nag topp nag ci ginnaaw sëriñ talxatu busa ci ndigal nag lu leen Cheikh Mamadou Fadal Mbacke wax ca mbooloo moomu nga xam ne nii nag ay dongay sëriñ Abdou Samad Mbacke lañ woon mujj topp itam nag ci ginnaaw ci dëkk boobu itam nag di mbar ñu man caa ràññee sëriñ fàllu silla man caa ràññee ñuy wax sëriñ cheikh ndiaye man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ àllin luum man caa ràññee ku wax sëriñ baara diop ba tey ci mbooloo ma ñu man caa ràññee ñuy wax sëriñ moustapha fall nekkoon jarbaatu sëriñ bi ba tey itam nag ñu man caa ràññee ku ñuy wax baay naar fall nekkoon itam nag jëwriñu sëriñ bi ba tey itam nag ñu man caa ràññee ñuy wax baay moor sëy baay moor sëy mii nag moo yoroon barabu sëriñ abdu samat mbàkke ba tey itam nag ñu man caa ràññee baay moor njaay dëkkoon itam ci dëkk bu ñuy wax xulle wala baay moor njaay xulle ba tey itam nag ca mbooloo ma ñu mënoon caa ràññee sëriñ bamba mbeng ca mbooloo mbooloo moom itam nag ba tey ñu mënoon caa ràññee njaw mbeng ba tey itam nag ñu mënoon caa ràññee sëriñ amar fatma mbeng mënoon caa ràññee baay cheikh diop mënoon caa ràññee nag sëriñ maalik fay ndakaaru mënoon caa ràññee sëriñ moodu xulle ca kaolack mënoon caa ràññee sëriñ xulle ak baay moodu jaañ ba tey ñu toppoon sëriñ abdu samad mbàkke te nekk itam nag ci ginnaaw sëriñ talxatu buso ñu mën caa ràññee sëriñ moor xulle sëriñ moor xulle mii nag moo jur sëriñ aliyun xulle ak baay xulle baay xulle mii nag ak njabootam itam nag ñu ngi mbar ba nëgëni ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii itam nag jaayante woon nañu donc sëriñ talxatu busoo ginnaaw boo xam ne nii nag sëriñ Abdou Samad Mbàkke bàyyi koo na fi te cheikh mamadul faadal mbàkke nag doon xamal sëriñ talxatu busoo fexeel nag ba sama ndey jii di soxna xari mbar silla bëtam du xonq ak njabootuk sëriñ Abdou Samad Mbàkke gi te nga wéy nag yor ndonal sëriñ Abdou Samad Mbàkke ci dëkk bii nag di mbar mbooloo moom ñu leen limal wala lenn nag ci mbooloo moom nag ñu leen limal bokkoon nañu tim nag ci ñu jaayanteeg sëriñ talxatu busoo ginnaaw kàdduy cheikh mamadul faadal mbàkke yi sëriñ talxatu busoo nag wéy nag nekk Faadal Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag wéy nag nekk nag xalifa général des Mourides ba ci atum 1968 laataa 1968 nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke na nag wéy nag di eggale jumaay Sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ji ci jumaa jooju nag mu doon tabaxal Sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ci àddiyee yim doon laaj mag ñi Sëriñ Talxatu bu sayitim nag aw sasam daana ñëw ci 1960 bi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di laaj itam mag ñi ñu joxe nag seeni addiya ci sasu jumaa ji Sëriñ Talxatu bu sayitim nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag bindoon ma ngi koy wax nag sas naa la nag nga joxe fukki junni ngir moot liw sas wi na nga ko joxe nag fii traite bi taxaw wasalaam ñu teewlu lettre bi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag bindoon sëriñ Talxatu Buso di ko laaj nag addiyee fukki junni bismillahi rahmaani rahim yow sëriñ Talxatu la nga joxe fukki junni ci mot lib liggéey bi inchaa allahu fii awali traite wasalaamu aleykum allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallam ci 1963 sëriñ Talxatu Buso itam nag jotaatoon na Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mi ngi koy laaj aw sasam Cheikh Mamadou Fadal itam nag ma ngi koy xamal ne yow sëriñ Talxatu Buso saw sas itam nag laa bëgg itam nag nga mottali ko mu toll itam nag ci fukki junni ñu teewlu ko bismillahi rahmaani la nga joxe fukki junni ci mottalib liggéey bi fii awali taret incha allah wasalaam allahuma salli ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallam alhaaji muhammadul fadal ba tey itam nag ci adde yi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doon laaj sëriñ Talxatu toll nag ci ñaar fukki junni sëriñ Talxatu Buso nag joxe ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag man koo def ci jumaa ji salaamaaleykum wa rahmatullahi yow sëriñ Talxatu Buso maa lay nuyu lu bari lool te di la sant bu baax te di la xamal ne digal naa la nga joxe ñaar fukki junni ci mot lib liggéey bi fii awali tareet incha allah wasalaamualeykum alxaaji Mouhamadul Faadil Mbàkke ba tey ci diggante Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ak sëriñ Talxatu Buso bi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag joxe ndigal sëriñ Habo Mbàkke miy doomam mu dem nag ci dëkkub Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bii Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke gor di Tuubaa Madina sëriñ talxatu buso la cheikh mamadul faadal mbàkke nag doon sàkku ci moom mu defaral nag sëriñ xaboo mbàkke doomam am néeg dëkk boobu nag di Touba Madina ñu teewlu lettre bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke bindoon di ko wax nag na defar am néeg nag ci Touba Madina aousubillahi mina sheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi yéen taalibey mbar maa leen di nuyu ci turu sëriñ talxatu buso te di leen sant bu baax te di leen xamal ne digal naa leen ngeen wutal sëriñ aboo mbàkke ab néeg bu baax fa Madina bépp taalibe bu nekk mbar loolu mooy seen digal maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam lettre bi nag ci 1964 la ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bind ginnaaw lettre boobu itam nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindaatoon na beneen lettre Serigne Talhatou Bousso ci 1967 di ko wax nag néeg boobu nga defaroon nag ci Touba Madina laa bëgg nag nga ànd ak mbooloo mi ko defaroon yeesalaat ko ñu teewlu nag lettre bi ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindaatoon ci 1967. salaamaaleykum wa rahmatullah yow Serigne Talhatou Bousso ak taalibe Mbar maa leen di nuyu lu bari lool te di leen sant bu baax te di leen xamal ne néeg bu ngeen defaroon fa booba ngeen yeesal ko ko incha allah loolu mooy ndigal la noonu rek maa ngi leen di sant te di leen gërëm wasalaam alxaaji Mouhamadul Fadal mu wéy nag topp nag ci Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke di ko xooli sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul toogitim nag ci dëkk boobu nag di mbar yor nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbàkke soxna maam xari si la mbar nag muy waajuru sëriñ Abdou Samad Mbàkke jël sëriñ Talxatu Buso itim nag def ko doom ba na soxna maam xari si la mbar musta nangu itim nag kii di sëriñ Talxatu Buso sori ko bi Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke jébbalee sëriñ Talxatu Buso kër ci Tuubaa soxna xari si la mbar mi ngi doon xamal nag sëriñ Bousso ci sama biir kër gi nag ngay wéy nag di nekk ndax bugguma nga sori ma mu wéy nag nekk mbar yor ndolal sëriñ Abdou samat Mbacke di liggéeyal nag xalifa général des Mourides di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mook Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag jaar nañ fu baree baree baree bari moo xam ci ndigal ak yeneen ak yeneen ak yeneen tax na itam nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi sëriñ Abdou Samad Mbacke génnee àdduna soxna sii nag sëriñ Abdou Samad Mbacke dëkkoo woon di soxna Faati Silla sëriñ Talxatu Bousso itam nag lañ ko jébbaloon am na ak njaboot ak kii sëriñ Talxatu Bousso ñu man cee ràññee ka sëriñ Tamxatu Buso fayee sëriñ Abdou Samad Mbàkke mu sëriñ Touba Xaadim Rasuul ak kam fayee sëriñ Touba Xaadim Rasuul di sëriñ Cheikhouna Buso ak kam fayee Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu sëriñ Touba Xaadim Rasuul ak kañuy wax soxna maam Awa Buso ak kañuy wax soxna maam Faati Buso njaboot gi nag la am ak soxna Faati Silla mi nga xam ne nii nag ci loxoy sëriñ Abdou Samad Mbàkke nag la nekkoon ginnaaw bu sëriñ Abdou Samad Mbàkke génnee àdduna Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke jébbaloon ko ko mu wii nag toog mbar ci ndigalul Cheikh 1968 bi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke génnee àdduna ci atum 1968 kii di sëriñ Talxatu Bousso defaloon na nag am marché Cheikh Mamadou Fadal Mbacke soo delloo nag ci biir marché bi sëriñ Talxatu Bousso defaloon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mag ñuy wax itam nag jikkooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tabuk Cheikh Mamadou Fadal Mbacke melokaanu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yéeme gu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yéeme woon ak doxalin wu yaatu daal wu Cheikh dul faadal Mbacke daa doxale ñu teewlu nag marché bi ko sëriñ Talxatu Bousso defaloon ginnaaw nag bu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke génnee àdduna ci atum 1968 haadihi silsilatu surafa wa ajdaadi cheikhina alxadim mazman alayhi akbaru ridwanillahi min allahi min albaaxi alxadim wa fi awaliyatiha qasidatun muqaddima tataallaqu bilxalifati alafifa alcheikh alhaaji Mouhamadou Fadal Mbacke aqil fadila fa qultu naaziman ala zulfadli min aalin maqaamuhu wa taala bina li safwatina muqaamuhu fa haza wa huwa amiruna bi urfin wa naahin an manakira bil ishara taallaq waltama tamassak yaa murid wala taxfal izan fatanal ifaada fa in laa xayta xillul xarmi talqaa karimal xulqi wa huwa aqu bishara mata jaalasta sayidana tajidhu bi tarxaabin wa wajhisi basaasa fa yaa ajaban lizi jaahin azimin saxaa yumnaahu taxkihi saxaaba yubasbisu wajhin man yaati bi xaajin bi tafsirin bi nayli qadaai xaaja axul azaari jahbisuna safoo li asraatin bi tawsiatin ciyaala wa minhu sajiyata ikraamu cheikhin kabirin wa huwa rahimu si zi saqara yumazihu inda xadratihi bil ahli an tafriti wal ifrati saa fala ma garwa kawni sayxi fadlan ala alfudala wa kun biziyada fa alamuhum wa alamuhum diraya wa atqaahum aqilillahi taa bi xabdatihi azimatu ahli nuski wa tasxiri almuluki zil imara walima la walxadimu abuhu nicma taamal in tajidhu waliya saada xabaahu allahu fadlan min ladunhu bi tawliyati alwilayati wal inaya wa ayadaha بنور الوحي سرا خفيا مودعا أهل الصيانة كما شرفا من الطرفين يحوي من أجداد لهم أعلى مكانة فبارك فيه بارئ الخلافة بطول العمر أيضا والوراثة وفي توباه مركزه بخلد مقيم زتنعم بالحلاوة على المقدوم محال وصحب صلاة الله جل حوت سلامة وزاد ردا وجاها للقديم وعزا ما نزداد بها استقامة loolu nag mooy marché bi Sëriñ Talxatu bu sa defaloon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu wéy nag toog mbar ci ndigalul Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag lu mu fi bàyyi woon wéy nag ànd ak nag waajuru Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke wi nag di soxna Xari Mbar Silla ba ni soxna Xari Mbar Silla génnee àdduna ci atum 1988 ginnaaw bu soxna Xari Mbar Silla génnee àdduna ci atum 1988 Sëriñ Talxatu Buso nag dafa wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbar nekk nag ci ginnaaw sëtu soxna Xari Mbar Silla bi di soxna Aji Maam Buso Mbàkke bintu Sëriñ Abdu Mbàkke la ci aji maam Bousso nekk itam nag ci dëkk boobu itam nag di mbar ci ginnaaw doomu sëriñ Abdou Samad Mbàkke bi di ko taxawu itam nag nam doon taxawoo maamam ja soxna xari mbaar si la mu wéy nag toog mbar ci ndigal nag lu fi ma Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke bàyyi woon képp itam nag ku ma mu dul Fadal Mbàkke ci jal bi jox nga ndigal itam nag sëriñ Talxatu Bousso itam nag mu wéy toog mbar mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul jaxasoo woon nga ak sëriñ Talxatu Bousso ñu mën cee ràññee sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ku jaxasoo woon ak sëriñ Talxatu Bousso la ba tax na sëriñ Talxatu Bousso tudde na ko doom sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke sëriñ Talxatu Bousso tudde na ko ñaari yoon doom sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke sëriñ Talxatu na ko doom ginnaaw relation boobu mu amoon ak sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke wax na ne mook sëriñ Talxatu Bousso ñoom ñaar nag ñoo bokk nag benn bis nag bu ñu feeñee jamono ci 1915 ak relation amoon nañ ko ñoom ñaari jëmm yooyu sëriñ Soye bu Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul sëriñ Talxatu Bousso tudde na ko ñaari yoon doom ndax soxna xari mbaar si la mii moo nekkoon nag waajuru sëriñ Soye bu Mbacke Mbàkke tax na képp koo xam ne nii nag yaa yor soxna xari mbar silla xaritu sëriñ Souhaïbou Mbàkke ngay doon sëriñ Talxatu sa mii nag moo sàmmoon nag ndonol sëriñ Abdou Samad Mbàkke ba bëttu soxna xari silla mbar nag du taa bu yaatoo yaatu nag la séqoo nag sëriñ Souhaïbou Mbàkke sëriñ Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku jaxasoo woon nag nag sëriñ Talxatu Buso la sëriñ Talxatu Buso tudde na ko doom bi sëriñ Talxatu Buso génnee àdduna sëriñ Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko taxawu sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku nekkoon Talxatu Buso la tax na sëriñ Talxatu Buso nag lañ ko booleeloon ci dëkk boobu itam nag di Mbar ginnaaw bu mu fi bàyyi ko moom sëriñ Abdou Samad Mbàkke mu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Talxatu Buso itam nag moo yoroon ndonom wéyal nag liggéeyub sëriñ Abdou Samad Mbàkke loolu itam nag tax na sëriñ Talxatu Buso tudde na sëriñ Abdou Samad Mbàkke doom soxna maam xari Mbar Sill mii waajuru sëriñ Abdou Samad Mbàkke itam nag sëriñ Talxatu Buso mii na soxna na ko doom ku jaxasoo woon ak itam nag njabootub sëriñ Tuubaa Mbàkke gu jigéen ngëneen gi la rawatina soxna muslimatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool ak soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool ba tey nag ci relation yi sëriñ talxatu bu sa amoon kii di sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke mi toog toogaayu sëriñ tubaa xaadim rasool ku jaxasoo woon nag sëriñ talxatu bu sa la relation googu mu séqoon nag sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke nag wax na njabootu sëriñ talxatu bu sa di leen a àndoon nag ak saxaar te moom sëriñ cheikh sidil maxtaar mbàkke nag mu àndoon ak sëriñ cheikh awa balla mbàkke ginnaaw bu ko sëriñ talxatu buso nag fekkee woon ca saxaar moxtaar mbàkke sa baay sëriñ abdou samad mbàkke nag ko ginnaaw bu sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke jógee nag ca jataay ba dem nuyu sëriñ abdou samad mbàkke ca jataay boobee itam nag la njëkk a gis sëriñ abdou samad mbàkke loolu itam nag taxoon na nag sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke nag amoon yéene tuddee sëriñ abdou samad mbàkke doom ginnaaw bu mu tuddee sëriñ abdou samad mbàkke doom te gisul talxatu busa nag la bëggoon a fob nag sëriñ Abdou Samad Mbàkke moomu nag jébbaloon ko ko nag ngir mu yor ko nag ci dëkk boobu nag di mbar sëriñ talxatu busa nag daana wax ne sawarul nag di yor nag ku sant Mbàkke relation nag amoon nañ ko ñoom ñaar ba tey nag ci relation yi sëriñ talxatu busa amoon ñu mën cee ràññee sëriñ daam busa ilimaan mën cee ràññee sëriñ maxtaar buso bu gedee sëriñ maxtaar buso mii nag doomu sëriñ Mbàkke buso la ba tax na itam nag moo sëriñ talxatu busa itam nag jaxasoo woon nañ lool lool lool ñaare foo masaa gis sëriñ maxtaar buso daa gis itam nag sëriñ nag jaxasoo gu sëriñ talxatu bu sa jaxasoo woon ak mag ñi ñu man cee ràññe sëriñ ibrahima bu sa mbir ki laan relation yooyu sëriñ talxatu bu sa amoon tax na itam nag ak njabootam itam nag tasaare na leen ci atub xaadim rasool bi doomam ji di soxna daba buso sëriñ xaadim ka moom sëriñ cheikh ka moom sëriñ sàmba tukkuloor ka nag lañ ko jébbaloon doomam ji di soxna nday buso sëriñ maali géey nekkoon taalibe sëriñ fàllu njurul nag lañ ko jébbaloon doomam ji jébbaloon doomam ji di soxna maam xari buso sëriñ soye bu jenn moom sëriñ baara jenn moom seex isaa jenn la ko jébbaloon doomam ji di soxna bintu buso sëriñ moodu mustapha mbàkke falilu ñu gën koo xam ci sëriñ moodu busa jeng la ko jébbaloon ginnaaw sëriñ moodu busa jeng lañ fop soxna bintu buso jébbal ko sëriñ fàllu njurul doomam jii di maam faatu buso sëriñ mbàkke mbay nekkoon bëkk néegub sëriñ tubaa cheikh abdoulahad mbàkke lañ ko jébbaloon doomam jii di soxna aji buso sëriñ abdou samad buso lañ ko jébbaloon doomam jii di maam awa buso sëriñ lamin silla lañ ko jébbaloon nag ku jaxasoo ak mag ñi jaxasoo googu mu jaxasoo woon nag mag ñi ak famille boobu mu bokk itim nag muy busoo loolu itim nag tax na nag sëriñ talxatu na ci itim bu yaatoo yaatoo yaatu di topp nag famille boobu nag di mbusoobe fan nag la soqi koo soo delloo nag ci bi ci sëriñ talxatu buso def mag ñuy nettali nag ci biir téere bi famille boobu na càllale gi naka la jógee nag ci soxna jaaratullaahi ba nim eggee nag ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam gëstu bu yaatoo yaatu daal la ci sëriñ talxatu buso def ci famille boobu nag di mbusoobe ñu teewlu naqasi dëgg ci sëriñ talxatu Matou Bousso def di ñu wax yàlla léegi wa baadu fal maxsuudu nazmu silsal sila ajdaadi sayxina alqadimi si sila aani bi man taabat bihi l usulu fadlan kama taabat bihi l fusulu laallani bi nasbihi usaabu wa billasi yadurru la usaabu bi sayxina albarri alkarimi ahmada badatu nicmasa xadimu ahmada wal ummu sayidatu nicmat jaaratu maryamu man qad rabihat tijaaratu taqiyatun sayidatu nisaai matxi laha fi subxi walmasaai wa hiya bintu sayidi muhammadi ayil busoo bi faratib tuhmadi wabnu man sumaatuhu matabara ibnu hammad ibnu ali ilqabara salila sayidi doi usmana fa xus aqi bi hifsi zil amana najli lasi summiya bi ibrahima salili ismaila kun fahima wa udda min jududihi zakariya salili ismaila aidan faiya ibni sulaymana salili alxasani salili ibrahima milli xasani wa huwa najlu man duhi haruna salili abdillahi kun mamuna ibni muhammadi salili abdi udifa lil fatta abdillahi xayri abdi ibni muhammadin ila aliyi nusiba faxbalan ayaa wali ibnu bikaar ibni muhammadin ila abi bakrin nusiba faxfasan wila ibni muhammadin ila ali nusib ibni alxusayni faltaadda waxtasib najli muhammadin ila muhammadi numi ila abdil asisi fahtadi salili sibti alqadiri aljaylaani alfaiqi alxaawi rida arrahmani huwa ibnu mawla ibni abdillahi salili yahya alzahidi alawaahi salili daawuda salili muusa kuniya bilxawaani ilma qisa خليل عبد الله المهدي نجل الحسن ست النبي الكمي وأمه فاطمة الزهراء بنت نبينا يا غراء محمد واسطة القلادة ونرتجي بجاههم سعادة صلى عليه خالق البرايا والآل والصحب ذوي المزايا يا ربي اللهم فاقبل نزميا وفرحا به الخديم وحميا بجاه شيخ أحمد القديم عليه والآل رضا المخدوم آمين يا رب العالمين mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbar ba ni mu génnee àdduna ci atum 2003 Touba mu nekk itam nag ku ubbeeku itam nag ci jamono moom sëriñ Tanxatu Buso daana ànd ak sëriñ Abdou Samad Mbàkke am na sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag daa tukki itam mi tax nag ginnaaw bu nag daana dem na fa ci atum 1970 a ruqe itam nag ci réew mi muy Casamance itam nag dem na fa bu Abdou Samad Mbàkke na sëriñ Touba Xaadim Rasuul daana fa dem sëriñ Tanxatu Buso nag amoon na kër itam nag ci Gédé Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke itam nag dogaloon na ko kër itam nag ci Touba kër gi nag moo jàkkaar Marlo kër sëriñ Abdou Samad Mbacke im sëriñ Touba Xaadim Rasul dëkk bi itim nag di mbar sëriñ Talxatu Bousso itim nag am na fa kër ci kër googu mu amoon ci mbar itim fa la nekk di wéyal nag ndonal sëriñ Abdou Samad Mbacke ci ndigalul xalifa général bi fi newoon nag di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke lii di Makkatal Mukarrama sëriñ Talxatu Bousso nag demu fa kiñ ko joxoon nag mu nekk ak moom di sëriñ Abdou Samad Mbacke doon na ko xamal na nag su may dem Makkatal Mukarrama nag yow laay àndal laataa sëriñ Abdou Samad Mbacke nag di dem Makkatal Mukarrama génn na àdduna tax na kii di sëriñ Talxatu Bousso demul Makkatal mukarrama mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbar ba ni génnee àdduna ci atum 2003 laataa muy génn àdduna nag feebar daaneel na ko ñu yóbbu ko nag ci hôpital régional bu Kaolack di hôpital Cheikh Ibrahima Niass ci hôpital boobu nag la génnee àdduna bisub ajjuma juróomi fan ci weeru tabaski ci atum 1423 ci gàddaay gi ajjuma juróomi fani tabaski ci atum 1423 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 7 février ci atum 2003 vendredi 7 février 2003 la doomu Serigne Omar Bousso bi nag génn àdduna dëkk boobu nag di Kaolack ñu jëlee ko Kaolack nag indi ko ci dëkk bu sell bii nag di Touba Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee moom Serigne Talhatou Bousso Serigne Abdou Samad Bousso di kam faye woon Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul moo ko wuutu nag ci atum 2003 ba 2008 ñaareelu xalifa Serigne Talhatou Bousso mooy Serigne Cheikhouna Bousso di kim faye Serigne Touba Xaadim Rasul moo fi nekk nag ci atum 2008 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Talxatu Buso bi ak mbooleem njaboot nag gum séexal sëriñ Talxatu Buso sëriñ Talxatu Buso nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci ñu tuddee ak màggal muy fukki fan ak ñett nag ci weeru tabaski di ay bis nag ginnaaw bu mu génnee àdduna ay bis yooyu nag ginnaaw bu mu génnee àdduna nag la ak njabootam jàpp di ci fàttaliku nag sëriñ Talxatu Buso ci dëkk bii nga xam ne nii nag fa la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke dëloon nag di mbar ci ndigal lu leen sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke jébbaloon màggal gi itam nag màggalug bëccëg la ñu yendoo fàttaliku nag sëriñ Talxatu Buso ba tàkkusaan nag ñu ñaanal mbooleem soppay sëriñ Talxatu Buso ak képp koo xam ne nii nag ñëwoon nga ca bis ba sëriñ Talxatu Buso nag ci nekkinam lii di bisum ngën gi mbindeef sallallahu wa sallam nag di gàmmu daana ko màggal itam nag ci dëkk boobu itam nag di mbar ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag saa bu gàmmu dikkee itam ak njabootam nag ñi ngi wéy nag di fàttaliku bisub ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam googu ci dëkk boobu itam nag di mbar waaye a wér daal ci ak ñett nag ci weeru tabaski di bis bi nga xam ne nii nag moom mooy ay bis ñu dëddoo ñuy ñaan ci barkeb sëriñ Abdou Samad Mbàkke mi sëriñ Talxatu Buso nag wuutu nag ci dëkk boobu nag di mbar yàlla na ko suñu borom nag yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñu borom saafara ci darajay Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moomu ko dëeloo nag ci dëkk boobu nag di mbar amiin